ñu xamni suñu kër gi di kër borom gawan nee suñu kër gi déggo nañ ci genn kat rek né ñu ñu dom ji di serigne modro. su waxé mom serigne Mor fatimo wax ak mbolem bundi kër lolo borom gaawaan yëpp muy nek ñaari kaddu jërul muy nek ñaari lo jakar lol lo jakar lol ko seede bokkut ak luñ la netti li nga di ko seede waaye mën na maa seede ci moom loo xam ne waaye mën na maa seede ci moom loo xam ni mën naa koo seede fa kanam suñu borom mën naa koo seede fa kanam suñu borom mooy nit koo xam ne mooy nit koo xam ni xol bu laab la xol bu laab la yore bu fekkee suñ sëñ Muntaxa daf ma yebaloon man de bu fekkee ne sëñ Muntaxa daf maa yebaloon boole ma ak sëñ Cheikh Abdoul Latif boole ma ak sëriñ Cheikh mu sëñ Abdoul Latif sëñ Moustapha Lakaram ñëw fekk nu fi Serigne Moustapha Lakaram it ñëw fekk nu fi. ma toog nii ci kanam sëñ Sidi Muxtaar. ma toog ci kanam sëñ Sidi Muxtaar. toog ci kanam Serigne As moom sëñ Moustapha Caytu. ci kanam Serigne As moom sëñ ah, xam ne daal. xam ne daal. Serigne Mountakha. sëñ Mountakha. ni ko sëñ Cheikh waxe ni ko sëñ Cheikh waxe genn kàddu rek laa ci déggut. genn kàddu rek laa ci déggut. ca la ma waxoon. ca la waxoon. dafa wax ne. dafa wax ne. sëñ Maamun mii dey sëñ Maamun mii de. sunu borom la kenn mënut a xëccool. sunu borom la kenn mënut a xëccool. Konde du dem léegi. waaye Konde du dem léegi. borom nag. waaye sunu borom nag. kenn mënut xëccoog moom. kenn mënut a xëccoog moom. waaye sëñ Maamun mii. waaye sëñ Maamun mii. am na njëriñ lool ci yoon wi. am na njëriñ lool ci yoon wi. am na njëriñ lool ci lislaam. am na njëriñ lool ci am na njëriñ lool ci bokk yi. lool ci bokk kon nag. kon nag. kàddu googu. kàddu googu. suñ ku ko sëriñ Touba seereel. ku ko sëñ Touba seereel. na la wóor ne. na la wóor ne. texe na adduna ak alaxira. texe na àdduna texe waaw ginnaawam. ginnaawam léppay rafet. ay rafet. li nga xam ne rek. li nga xam ne rek. maa ngi ko ciy dolli. maa ngi ko ciy dolli. muy sunu kilifa gi nga xam ne. muy sunu kilifa gi nga xam ne. mooy si mooy alaaji maam Thierno. mooy alaaji maam Thierno. moom sëñ Cheikh Awa Balla. moom sëñ Cheikh Awa Balla. ku ne xam na Cheikh Awa Balla. ku ne xam na Cheikh Balla. ne Cheikh Sidil Muxtaar la tudd. ne Cheikh Sidil Muxtaar la tudd. loolee sëriñ Cheikh Awa Balla di ko dundal. loolee sëriñ Cheikh Awa Balla di ko dundal. ko dundal. maam Thierno di ko dundal. ba bërki ba bërki démb moom sëñ Mbàkke Astu. moom sëñ Mbàkke Astu. Daaru Salaam gépp fekk ko fa. Daaru Salaam gépp loolu firnde la ci. loolu firnde la ci. waaw sëñ sëñ Moustapha Lakaram. sëñ mu sëñ Abdou moom mooy kër borom kër borom gaawaan kaddu yi mu wax yi nga wax sant nañ ko ci bu baax a baax nañ la ci bu baax a baax a baax sëñ Sidi sant na la sëñ Sidi sant na la njaboot njaboot njaboot gi yëpp sant nañ la njaboot gi yëpp it nañ la euh, sëñ Sidi nag sëñ siidi nag danaa wax tuuti danaa ci wax tuuti yéen ñi koy xool bari xàmmeewuñ ko ñu ci bari xàmmeewuñ ko moom xàmmeewu leen moom xàmmeewu leen waaye sët yi nga xam ne waaye sët yi nga xam ne ndax di sëti borom gaawaan lañu. di sëti borom gaawaan. te xaw a doon mag. te xaw a doon mag. xam nañ ko bu baax a baax. xaw nañ ko bu baax a baax a baax. liggéeyub Serigne Touba moo di. liggéeyub Serigne Touba moo di. wet gune mënees na ko faa liggéeyal. wet gune mënees na ko faa liggéeyal. waaye nun ñii. waaye nun ñii. ku ci ne ànd nga ak sa baay. ku ci nekk ànd nga ak sa baay. dem banque BNDES. dem banque BNDES. fekk ko fa. fekk ko fa. sa baay soxlaw jiwu. sa baay soxlaw jiwu. wala mu soxla lu mu liggéeyee ci nawet bi. wala lu mu soxla lu mu liggéeyee ci nawet bi. moom mi la fay fekk. moom mi la fay fekk. mu toogal fa sëñ gaawaan. mu nekkal fa sëñ gaawaan ko ca jàppale ko ca ba mu am lim bëgg ba mu am bëgg ko kii mooy sëñ Ibra kii mooy sëñ Ibra Ndar mooy sëñ Ibra Ndar tey mooy tey te mate ko sëkk te mate ko sëkk waaw yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér sëñ Sidi mii doomam sëñ Sidi mii nag di doomi sëñ Modou Mamoun di doomi sëñ Sidi mii itam di doomi sëñ Sidi mii itam ah, moom itam moom itam wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla mat na sëkk mat na sëkk ndax toppoon na ci baayam. ndax toppoon na ci baayam. déggal baayam. déggal baayam. takk laxasaay gi baayam takkoon. takk laxasaay gi baayam takkoon. loolu moo am njariñ. loolu moo am njariñ. kon nag. kon nag. Eh, mel na ni. mel na ne. képp ku àndoon ak sëñ Maamun. képp ku àndoon ak sëñ Mudu Maamun. ngir yàlla. ngir yàlla. ak sëñ Gaawaan. ak sëñ Gaawaan. ak Serigne Touba. ak Serigne Touba. seigne sidi di ab Serigne. seigne sidi di ab Serigne. ab Serigne du ab Serigne du touti neena ab Serigne du touti ab Serigne du touti ab Serigne du touti seigne babakar mu kabaru mii. sëñ Babacar mu kabaru mii. gis bi muy jox addiyaam sëñ siidi mii. gis naa bi muy jox addiyaam seigne sidi mi dama ko setan lepp bam jeex. dama ko setan lepp bam jeex. mu wax mu mu tok ci souf tok ci souf ñu di ko jottali. ñu di ko jottali. mu yeesalaat ak taalibeem. mu yeesalaat ak taalibeem. ci sëñ Sidi. ci sëñ Sidi. feddali ak taalibeem. feddaliwaat ak taalibeem. loolu. loolu mooy doxinu taalibe. mooy doxinu taalibe.